moom lañ teg morceau de censure lañ tegoon c'est c'est la même histoire qui se répète conférence de presse bu yeewi askan wi dama ne benn côté c'est partisan parce que lañ doon bañal le président Macky Sall avec sa majorité mécanique moom la député yeewi askan wi def Ayib Daffé mi nga xam ne bokk na ci ñu ko jiite defoon na fi conférence de presse wax ci article cinquante cinq bi lii ñuy kaas yi ñoom xam nañ ko de muy yeewi askan wi muy député benn Bokk Yaakaar muy le premier ministre muy le président Bassirou Diomaye fay ñun ñëpp xam nañu article cinquante cinq moo jox obligation ak obligatoirement le premier ministre mu def déclaration bi moo tax ma ne la bu ñu sukkandiku à cent pour cent ci règlement intérieur parce que constitution moo ko féete kaw constitution au Sénégal moo féete kaw règlement intérieur. bu assemblée. Mm-hmm. moo tax Ousmane Sonko le premier ministre. dafa war dem ak morale ak éthique mais dafa am benn affaire bu am tamit. boo demee ba nar a jàkkaarloog les députés du peuple. waxoog les députés parce que député du peuple askan wi lañ fa toogal. Mhm. yow nga yor pouvoir nekk le premier ministre nga war a définir la politique publique des Sénégalais dañoo war a xam fan la ñu jëm xam orientation yi ñu war a teg pour sénégalais bu nekk xam ne kat boo duggee ci côté sport fii lañ jëm. côté agriculture fii lañ jëm côté finance fii lañ jëm xam réew mi ni mu nar a doxee fii ak déwén loolu mooy déclaration politique générale. te loolu mën ñu ko bañ a ñàkk def mais mais est-ce que également du doon risque aussi ah suñu jëlee que ne la majorité aussi mu ngi bokk ci euh, Benno Bokk Yaakaar ñoo ko ñoo ñoo ko ñoo ko amee motion de censure lu am lu baal mata bàyyi xel la également ci assemblée nationale. waruñoo ragal motion de censure. ndax nee naa la mais baaxul ci quand ci gouvernement. waaw ah, mais la balle est revenue moo tax politique looy def day ci xool ëllëg day ci sol ëllëg politique amul ami amul émotion politique amul relationnel affinitive politique relationnel d'intérêt la les discours d'hier yu Ousmane Sonko étant dans l'opposition bu doon tey du ko defee noonu te pourtant boo si depuis démb tey. ñu ngi koy andil ay vaaram parce que article cinquante cinq bi Ousmane Sonko waxoon na ci moo tax ma ne la jarul ñuy sonal Sénégalais yi ci xel mais dafa am benn mbir bu am bu ma bëgg a tënk. Mhm. pour terminer. boo demee pour déclaration de politique générale day fekk nga am programme booy tegal député yi. mais ku ne pare na tey mu wax ko ne pare ne kooku kay war naa am programme nag. quand même xam tax ma wax loolu. Mhm. gis nañ ne le premier ministre Ousmane Sonko toog na gouvernement am ne leen mois de septembre. nañuy finaliser projet bi nga xam ne moom lañ bëgg ko doxalee Sénégal mois de septembre la wax décembre lañ waxoon ñu del soit ci mois de septembre kon projet bi nga xam ne moom la ñu war a def devant les députés du peuple xamal ko les sénégalais muy le projet du PASTEF moo paree gut parce que septembre lañ koy conclure su fekkoon ne projet bi pare na jàpp naa ne suba suba bu ñu leen wooyoo ñu dem assemblée nationale mais boo amul projet bu pare. mais il a dit aujourd'hui quand même que ne je suis prêt pare naa pour dem def ji sama déclaration de politique générale ça veut dire que ne yor na document yi nga xamante ne moo koy permettre les documents peut-être ce sera le projet dañoo a tàmbali fan la koy defee mhm. fasu ko yéene defee biir assemblée nationale devant les députés mhm. moo tax ma bu ko defewul foofu su fekkee réglé wuñu problème dama ne xam na ne xoolal schéma de communication la effet de communication la mais moom volonté ak li mu bëgg a def xam na ko moo tax ma ne la le respect des institutions devrait s'imposer à l'ensemble des citoyens sénégalais moo tax ma ne la bu fekkoonte ne projet bi man jàpp naa ne sama xalaatu bopp la bu doon projet bi mat na sëkk ndax terme de référence la projet di am terme de référence yooyu boo ko amee ba mat mooy la vision mm-hmm. la mission et l'objectif du projet loolu mooy projet am ku ko porté ki ko porté moo ñëw toog ne kat fii lañ tàmbalee fii lañ jëm mais bu fekkee projet boobu dañ ne mois de septembre lay pare. très mois de juillet ñu ne ko kat déclaration de politique générale. d'accord kon bu demee assemblée nationale. Mm-hmm. ta am finition objectif projet bi mën nañ jàpp ne vision bi mat na. mission bi xam nañ ko mais l'objectif global et général du projet bu fekkante ne motagut te septembre lay bot mais dina am ay quoi pour mun a toog ak sénégalais yi. à travers les xamal leen ne fii lañ tàmbalee. fii lañ jëm moo tax ma ne la c' est un jeu. Mhm. de communication c' un bluff man gëm naa ne bu pare woon. Mhm. Ousmane Sonko ak ni mu mënee tontonte. Mhm. ak ni mu yàkkamtee nga dóor ko bal mu wan la ne dangaa daanu. très bien kenn du kon jiitu ci xam nga dañ naa damay tàmbali wax naan président Macky Sall paaka kenn du ko jiitu ci mbar. mooy Ousmane Sonko.